de retour sur ce plateau ñu daal di dalal suñu ñaareelu invité di Elimane Fall moom mi ngi jiite collectif u CTE yu Sénégal yi centre de traitement épidémiologique yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu ngi lay nuyoo monsieur Fall di la dalal ci plateau bi. maa ngi lay nuyu Astou di nuyu képp koo xam ne mu ngi toog di seetaan 2STV en ce moment donc di profiter ci seen antenne bi di souhaiter bonne et heureuse année à tous les Sénégalais particulièrement agents de santé yi nga xam ne ñu ngi ci biir hôpitaux yu Sénégal yëpp. et spécifiquement ñi nga xam ne ñu ngi aussi dans les centres traitement des épidémies comme vous de dire. Mm-hmm. tey naka ngeen di dundee euh, quatrième vague bi nga xam ne ñu ngi koy dund surtout au niveau de CCTE. bon quatrième vague bi c'était attendu comme ni nga xamee ne ñoom la yeneen vague yi yépp. niñ ko doon xaaree mais bii dafa am particularité mooy dafa am loo xam ne moom lañ tuddee ñun. démotivation agent yi nga xam ne ñoom ñoo daan sacrifier depuis le premier depuis la première vague euh, nga xam ne li ko indi mooy coow bi nga xam ne am nañ ko mu lié ñu ak ministère de la santé jëm ci li nga xam ne moom mooy motivation Covid 19 yi nga xam ne moom le président de la République joxe woon instruction ñu fekk képp koo xam ne travailleurs yi CTE la te ñu gis ne depuis le mois d' avril fayuñu loolu. donc alerte woon nañ autant il y a quelques mois waxoon nañ ne démotivation agent de santé yooyu mën na entraîner. ay conséquences yoo xam ne ci sénégalais baa doole bi euh, surtout kooku moom moo koy yëg donc tey fa la ñu toll on est à fond pratiquement ci quatrième vague bi mais dans les CTE melul comme ni nga xam ne noonu la meloon parce que tout simplement personnel bi nga xam ne moo fa waroon nekk tey ñenn ñi subir nañ conséquence su arrêt contrat au ministère de la santé yi ñeneen ñi ils sont démotivés parce que simplement ministère lancé na non seulement fayul mais lancé na alerte wax ne amatul motivation ci agent yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci prise en charge Covid 19 bi. te de démotivation nan lay manifester dafa dañuy déserter en général ci biir. Euh, bon xam nga agent boo xam ne yow da ko doon da nga koy liggéeyloo ci ay sacrifice yoo xam ne mën na dem ba ñàkk ci bakkanam nga waxoon ne à chaque fois. weer bu doyee au delà de salaire bi nga koy fay am na neexal boo xam ne da nga ko ciy teg moom motivation muy cent cinquante mille francs muy lu dérisoire nga jékki-jékki président de la république wax yow ministère nga jékki-jékki ne compte ne amatoo xaalis boo fayee donc ñooñu mën a too leen fay ci ton boo xam ne vraiment mënoon na gën a rafet Euh, en plus de ça agent yi nga xam ne yow say contractuel la ñu woon nga xam ne feebar bi moo taxoon nga recruter leen nga jékki-jékki au 31 décembre bii passé nga arrêté seen contrat yi alors que système bi mu ngi soxla agent yooyu alors que ñu ngi maladie Covid yi ñu ngi soxla agent yooyu parce que ñu am nañ expérience prise en charge bi donc démotivation bi ni muy manifesté oo mooy déjà boo demee dans les CTE ak personnel bi nga xam ne moo fa nekkoon ci deuxième première deuxième troisième vague personnel boobu nekkatu fa bon am na nag ñoo xam ne ils sont constants depuis la première vague mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk contractuel yi bi mais ñi nga xam ne acquérir nañ ay expérience deuxième troisième vague ñooñu ñëpp ministère de la santé muy médecin muy infirmier muy képp arrêté nañ ba ci spécialiste yi nga xam ne anesthésiste réanimateur yi nga xam ne Sénégal fépp lañ jooy que ne daf fi manqué ñooñu sax ministère la santé arrêté na seen contrat ci anam boo xam ne kenn rafetloo ko mais léegi loolu lan la mën a jox ci conséquence parce que gis nañ cas yi mi ngi gën a yokk euh, cas grave yi également euh, aujourd'hui euh, tey nga xamante ni ñooñu ñëpp arrêté nañ seen ay contrat ban conséquence la mën a indi ci li nga xamante ni moom moo di gestion épidémie bi défaut de prise en charge déjà parce que Covid bi quand même gars yi ñu ñu ci bari dañu jàpp ne routine la mais vague bu ñëw bu nekk rek dafay am ay particularités mm. tey boo xoolee anesthésie réanimation métier bi nit ñi xamuñ ko woon avant il a fallu que Covid bi ñëw ñu gis ay cas yoo xam ne cas yu doy waar la pour que ñu reconnaître que ne am nañu njëriñ surtout ci wàllum réanimation donc bu fekkee ne da nga wàññi personnel bi personnel bi nga xam ne moo fa des euh, bu doon bu fekkee ne benn nit la dafay obligé liggéeyu liggéeyu juróomi nit. donc loolu li muy indi mooy mauvaise prise en charge mauvaise prise en charge augmentation des cas graves augmentation des cas graves augmentation du taux de décès même su fekkee ne pour le moment noté guñ loolu mais tendance bi ñëpp xam nañ ne foofu la ñu jëm parce que tey jii may wax ak yow à la place de cinq six infirmiers yu daan garde deux ñoom ñoo koy def donc deux yooyu ñoom ñooy substituer liggéeyu quatre personnes de plus donc loolu surcharge de travail boobu nga xam ne fekk si na ñoom seen seen seen seen attente psychologique seen attente physique ak lépp nga xam ne depuis première vague bi ñu ngi fi coono boobu ñuy accumuler day indi carrément un déficit quant à la prise en charge correcte des léegi loolu dafa am yenn euh, centre yoo xamante ni moom la ñu gën a ràññee ni euh, dafa am déficit euh, d'agent wala mbir yi en tout cas fépp la. non fépp la dafa am foo xamante ni foofu la ñu gën a ràññee ni en tout cas mbir yi wàññeeku na foofu agent yi wàññeeku nañ. bon parce que système sanitaire au Sénégal de façon globale dafa mës am déficit personnel. Mm. mais nag am nay effort yoo xam ne dañ ko defoon ci prise en charge Covid bi prise en charge Covid spécifiquement ñu jël signé loon doon ay contrat ñooñu même bi ñu demee ba am tendance baissière ci Covid bi nga xam ne ñu ngi am ay zéro cas dañ leen ventiler woon ci yeneen service yi mais bi ñu fa demee on a eu la remarque comme quoi ñooñu dañoo indispensable ci service yooyu c'est-à-dire que ñoom dañoo fekk service yoo xam ne dañoo am ay déficit personnel ñu ñëw renforcer leen boo jëlee centre bu mel ni Dalal Jàmm par exemple man foofu laa nekk foofu laa nekkoon donc boobu noonu euh,

c'est la même chose c'est-à-dire képp koo xam ne dafa signé woon contrat de prestation ba ci région yi ñooñu ñëpp ministère à travers son DRH dafa décider rompre seen contrat. alors que defu tamit tendance bi c'est-à-dire liñ doon enregistré ci ay cas doon dem ba ay mille parfois euh, tey ñu ngi ci euh, cas yoo xamante ni c'est vrai que day day wàññeek di demee dans de si mais est-ce que tamit topp ñu tendance bi noonu et surtout li nga xamante ni moom la euh, tënkoon ci yooyu les contrats. Euh, diiru bi nga xamante ni Covid bi mi ngi mi ngi doog a dugg Sénégal. waaw mais dafa am lu bees c'est-à-dire que ñoom. c'est vrai bu fekkoon bu fekkee ne dañuy topp tendance bi bi mën nañu wax ne bi ñu demee ba dugg ci mi décembre munuñu woon bon mun mënatuñu woon justifier renouvellement wu contrat yi. Mhm. parce que amoon na ay nombre de yoo xam ne vraiment c'était nécessité wul woon te loolu sax entre guillemets lañ koy wax personnel boo xam ne bu bari la ñoom moment bi nga xam ne moom la ñuy arrêté contrat mooy le 31 décembre bii passé mu ngi fekk Sénégal mu ngi ci benn poussée donc dëkk yëpp ci àdduna bi fi mu toll nii ñu ngi commencé waat di renforcer seen personnel mais paradoxalement Sénégal keroog 31 décembre bi ñuy renouveler les contrats dañu arrêté képp koo xam ne mu ngi woon ci CTI alors que cas yi mu ngi doon yokk donc amul moment boobu noonu lan mooy justifier arrêt contrat yi ma ne la peut-être même ci personnel paramédical bi sax mën nañu comprendre mais dama ne même ba ci spécialistes yi anesthésistes réanimateurs yi nga xam ne ils étaient sous contrat avec le ministère arrêté nañ leen léegi di leen proposer ay garde rémunérés yoo xam ne prestation la simple amul benn motivation buy nekk derrière alors que ñooñu Euh, ak paramédicaux yi liggéey bi gën a atroce ci prise en charge Covid bi ñoom ñoo koy def donc tey ministère de la santé amul lenn luy justifier arrêt contrat yooyu nga xam ne def nañ ko ci CTE yi nekk Sénégal yépp mais particulièrement CTE Dalal Jàmm parce que mooy CTE bi gën a mag donc foofu tey boo fa demee ci fan yi mujj 72 heures yi mujj service SAU urgence bi ak CTE bi mais lu waar moo fa am parce que personnel yi amatuñ euh, prestataires yi nga xam ne dañ leen rompre dañoo wax ne ñoom du ñu dem di def ay prestations ñu leen di fay parce que ñoom dañu signé woon contrat ministère bu leen soxlaa te xam na ne soxla na leen na renouveler seen contrat yi comme ni mu ko defee woon ci début troisième vague bi. parce que loolu leen ci cas boo xamante ne da ngeen naan ci fi manque de personnel bi tey moom moo indi jëyee ci hôpital bi. bon loolu. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci service yi ñoom ñoo ko mën a wax spécifiquement mais man li ma xam mooy bu fekkee ne dafa am trente personnes yoo xam ne ñoom ñoo doon def benn liggéey trente yi vingt cinq yëpp arrêté seen liggéey cinq ya fa des mënuñu liggéey liggéeyu trente personnes yooyu. Mm. donc loolu c'est une évidence et donc directement conséquence bi mooy. malade yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk dañuy subir conséquence yi personnel bi nga xam ne moo fa nekk dinañ leen encombrer davantage te mënuñu def loo xam ne moom lañ moom mënuñu def lu dul ñoom li nga xam ne mooy li ñu mën te lu jëm ci prime de motivation yi ci xayma est-ce que jot ngeen xayma li nga xamante ni peut-être moom la leen euh, ministre bi war en tout cas bi ñu toogee boo jël parce que prime yi dafa dafa varié selon les hôpitaux selon les CTE je veux dire bu fekkee da nga jël dalal jàmm dafa am ñaar dafa am ñoo xam ne à partir du mois d'avril lañ leen avril 2021 lañ leen gëj a fay donc avril boobu. bal ba léegi yoral nañ leen huit mois parce que ministère après dafa lancé note comme quoi dafa arrêté contrat yi dafa arrêté euh, motivation yi mais bu am na ñoo xam ne ñooy prestataires yi ma doon wax léegi ñooñu à partir du mois de juillet donc août ba léegi cinq mois kenn fayu leen boo jëlee fan cinq mois lañ leen yoreel aussi dalal fële principal cinq mois mais boo jëlee SAMU national par exemple année entière fayuñu leen Covid donc SAMU 12 mois lañ donc ñu jàppoon ne peut-être côté personnel yeneen hôpitaux yi ñoom ñoo ëpp mais côté mois sami bu fekkee ci 140 millions la toll alors que 12 mois la ñu leen yore ñeneen ñi c'est peut-être moins wala même 100 140 millions donc bi ñu évaluer mënuñu dépasser 500 millions ci fay képp koo xam ne mooy agent yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci CTE te loolu ñun jàpp nañ ne ministère mën na ko parce que gis nañu ñuy def leneen ci yeneen fat anam yoo xam ne. te leen ni euh, bon ñaanuñu ko yàlla mais mbir yi bu demoon tey ba tollaat fu mu tolloon duñu leen bien sûr pour daal di leen indiwaat xoolaat seen ay contrat waaw mais loolu nag la ñu wax ne ñun moo dul yoon c'est-à-dire que période bii dañ fa toll période bii ñu ngi toll ci augmentation parce que bu fekkee ne c'était dafa doon jël quatre malades il y a une semaine tey mu nekk ci trente patients mais c'est évident que personnel ba fa neewoon doyatul léegi ñun lan li ñu comprendrewul mooy pourquoi ci contexte bi ministère au lieu mu xalaat def ay prévision wax bañ li ko daloon dalaat ko muy arrêté contrat yi ci base yoo xam ne peut-être li koy justifier mooy daf naan ñi nga xam ne ñoom la signé leen prestation yi ñoom ñoo ko nekk di vilipande ñoom ñoo ko nekk di kaas ci ci ci ci ci ci ci télé yeeg ci rajo yi ba nga xam ne ñoom ñu ngi leen di mettre aujourd'hui devant le fait accompli ak population sénégalaise man loolu ne peut-être moom mooy forme de vengeance bi nga xam ne ministère moo koy def et au parce que des malades du euh, ne ñoom ñoo nekk ci CTI parce que quand même soxla nañ personnel personnel boobu donc bu ñu xaaree ba nga xam ne dañuy aug dañuy dañuy am débordement global ci CTI e ñuy doog a renouveler contrat yi bu boobaa dafay nekk ñoom fayit ci ñoom parce que tey li nga xam ne mën nañ mën nañ ko def daar daar mooy renouveler ko bu boobaa ñun ñu mën a am suffisamment de moyens de ressources surtout physiques mën a jànkonte lépp loo xam ne ñëw na suñu kanam parce ñun gis nañu lépp donc on a acquis énormément d'expérience acquis du moins énormément d'expérience nañu profiter ci expérience boobu au au au grand bonheur du peuple sénégalais de façon général loolu moo gën ñuy def ci ay jeux ñuy nekk ci ay jeux yoo xam ne bu kaa yi wàññeekoo ñu arrêté contrat yi bu kaa système na système sanitaire au Sénégal dafa am déficit personnel loolu képp ku bëgg a wax dëgg Abdoulaye Diouf Sarr muy ministre de la santé dina ko ko wax donc a est par exemple boo jëlee corps paramédical bi on est à un déficit de plus de mille agents parce que on est loin des normes de l'OMS ci service sanitaire yëpp ci Sénégal donc personnel dafa manqué ku ne xam na loolu ku dem hôpital xam na ko te ci prise en charge Covid bi luur na luur boo xam ne benn nit bu fekkee dafa nar a substituer liggéeyu cinq personnes nit kooku lañuy ñuy sacrifier donc ñun dañuy profiter d'ailleurs ci antenne bi pour wax président euh, euh, comment on appelle agent de santé yooyu que ne ils ont suffisamment souffert. ministère tey amul lenn luy justifier le non renouvellement des contrats amul lenn luy justifier le non paiement des motivations nañu def li nga xam ne moom la ñu mën donte ay patriotes lañ donte ils toujours mii à l'avance euh, à l'avant du moins l'intérêt supérieur de la nation mais nag bët du yanu waaye xam na lu bopp attan. fas yéene daal c'est-à-dire def service minimum wala daal di banque seen ay loxo donte feebar bi moom mi ngi fi di di di di mais amuñu amuñu beneen choix déjà ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekkoon ci contestation ñun ñu ci bëri. arrêté nañ donc ñun dañuy toog suñ kër yi moment bii nii pour seetaan li nga xam ne moom mooy vague bi di ba vague bi di ñëw yéene wuñu Sénégal coono bi nga xam ne moom lañ dajoon ci troisième vague bi parce que sur le plan psychologique rek ñun agent yi li ñu gis bu fekk euh, boo ko nat amu am boo ko nattee amul dayoo. donc métti na méttiwaay boo xam ne ñun ñaaratuñu yàlla loolu xew Sénégal mais nag ñun ce sene ce n'est pas man boog bu ma fekk bu fekkoon ne tey maa ngi ci maa ngi conseillé ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci CTI yi actuellement li ma leen di wax mooy motivation yi seen liggéey la ñoom ñoo ko ñàkk munuñu delluwaat lu dul ñu fay leen integralement motivation yi parce que nit mënoo ko yoreel ba pare fayee goo ko li nga ko yoreel leneen ñëw nga ne na liggéey en nga koy fay te DRH yi ministère de la santé bi li mu wax mooy ñoom amuñu xaalis bu ñu fayee 2022 la waxoon nañ xaar ba ñu voté budget bi budget bi voté nañ ko 2022 ñu ngi ci moom moo waxoon ne à partir de 2022 intégralement lay fay somme yi te li gën a doy mooy moom li mu ñu waxoon parole responsable la parce que wax naa ko fépp ñun ki ñu jàkkaarloo woon mooy DRH bi nit ku correct la nit koo xam ne dafa wax ñu dégg ñu jàpp ne nit moo wax ak ñun koo xam ne am na une grande responsabilité ñu nangul ko la mu waxoon quelques jour plus tard mu proposé ñu ci ñoo xam ne 12 mois nga leen yoreel ak 8 mois 2 mois de restitution ñu ne ko 2 mois yooyu duñ ko laal mu jël exprès hôpital principal fay ñi nga xam ne ñooy infirmier ak ak médecins yi kese ñuy wax ne prise en charge Covid bi ñooñu am nañ ci importance mais am na ñeneen hygiénistes yi si lañ bokk brancardiers yi si lañ bokk nest pas ambulanciers yi ci lañ bokk. ñëpp ci la ñu bokk donc mënuñu mënul jékki-jékki rek fay ci yenn base ci base boo xam ne kenn xamul lu koy justifier infirmiers yi ak médecins yi yenn infirmiers ak yenn médecins yi rek rek yem fa ci loo xam ne amul lu ko justifier hôpital dalal jàmm bi même deux mois yi nga xam ne ñële am nañ ko moom ñoom jotuñu ko xaw ma nag lan mooy justifier euh, errement yooyu waxtaan mën na am ba jibu juboo ci ay kàddu mën ngeen euh, stade ya toog xool noo leen waxtaanee mbir mi euh, ci jamono ji nga xamante ne en tout cas mënuñu de santé yoo xamante ni dañuy banque seen loxo si jamono ji nga xam ne mbas mi moom mais ñun waxtaan rek lañ soxla parce que ñun li li ñun ay agent au ministère la santé lañ ñun suñu place si biir hôpitaux yi la du ci mbo ci table de constat contestation yi. loolu am na ñoo xam ne yéen a ngi ci yooyu la démarche yéen ngi ci yoon yooyu. bon am amul benn benn benn approche boo xam ne ministère def na ko à notre même pour DRH recevoir ñu il a fallu que ñu informer ko ne ko euh, agent yi dañoo bëgg a def sit-in devant les grilles du ministère donc moom mu anticiper ci loolu la veille euh, kii comment on appelle la veille mu woo ñu ne ñu daf ñu bëgg a rencontrer keroog rencontre boobu amatul beneen rencontre. aujourd'hui je crois que moom DRH wane na ay limites am donc ministère de la santé ministre de la santé du moins en l'occurrence en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr na xam ne agent de santé yi soxla nañ waxtaan ak moom ci lu jëm ci paiement intégral motivation yi ak li jëm ci renouvellement contrat yi nga xam ne amul luy justifier actuellement seen arrêt. donc bu par ricochet président la république aussi na ko yëg xam ne mot instruction ya mu joxe woon ci nañ fay intégralement motivation agent de santé yi pay motivation yi kenn fay ko donc Sénégal foofu la ñu toll actuellement après tant d'efforts yi nga xam ne ñun moom lañ fournir ci li nga xam ne moom moo nekk ci prise en charge Covid bi mu dem ba nga xam ne am na ci ñun ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan tey Sénégal kenn xamut ñooñu alors que boo jëlee dëkk bu mel ni Tchad bii tout près agent yi nga xam ne mu ngi woon ñu ngi woon ci seen charge décédé ci Covid 19 parce que dañoo contracté maladie bi daf leen indemniser à hauteur de 1 million pour chaque agent ñi nga xam ne dañoo contracté Covid bi kese mu indemniser leen à hauteur de 500 000 francs pour chaque agent pendant ce temps Sénégal moom fi mu toll mooy yoreel ay xaalis boo boo xam ne c'est des miettes parce que ñu ngi distribuer des milliards ailleurs agent yoo xam ne benn toor lañ am mooy sacrifier seen lépp. bi peuple sénégalais bi yëpp jaaxlee dem ci biir centre de traitement des épidémies mënuñu woon dellu suñu famille mënuñu woon dem fenn suñu yaay ak suñu papa yi mënuñu woon gis fenn ñun ñoo doon sacrifié wu loolu malade bu nekk bu mës a contacté covid 19 ba ci ñoom ñi parce que ñun ñoo leen doon jël en charge ñoom ministres yeeg ñeneen donc ñoom xam nañ liggéey bu ñuy daj donc pour ça ñu rendre monnaie bi te ñun waxuñu ñu may ñu dara yalwaanuñ dara nañ ñu fay intégralement xaalis bi nga xam ne ñun ñoo ko liggéey merci beaucoup Elimane Fall looy tàggoo ak euh, donc dernier mot bi c'est à l'endroit d'abord du peuple sénégalais nañ fexe quatrième vague bi mu ngi fi benn alternative pour le moment moom moo am mooy vaccination. mën nañu discuter de lépp ba mu des chiffre ñun ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain a chaque fois bu ñu amoon dix patients yoo xam ne dañ leen hospitalisé huit yi bu ñu leen laajoon dañ naan ñu vacciné wuñ gis nañu ay patients yoo xam ne am nañ soixante-dix ans et plus génn ci Covid bi. parce que vaccination moom moo leen ko permettre mais gis nañ ay jeunes de 30 ans aussi yoo xam ne dañ succombé malheureusement génnuñu ci Covid bi dañ décédé li leen ko yóbbee mooy ñàkk vaccination maintenant après tous les toute la discussion qui peut qui peut subsister ci ci ci ci cadre Covid 19 ci cadre vaccination bi benn constante moo am mooy vaccin bi au moins dina la permettre même boo contracté Covid bi nga bañ a nekk un cas grave. te loolu dina la permettre nga anticiper nga nga nga éviter les les les décès ñaareel bi mooy le président de la république ñu ngi koy wax ne ko paiement bi bëgguñ mu nekk un paiement graduel dañoo bëgg mu nekk un paiement intégral nit boo demee ba am audace arrêté contrat yam ci contexte boo xam ne dara dara wu ko amal ngoru fay ko li nga ko yoreel. au moins c'est le minimum ñi nga xam ne ñoom lañ yoreel huit mois nañ leen fay intégralement seen huit mois te arrêté seen paiement deux mois yi nga xam ne dara justifié ko mhm. troisième bi mooy nas peuple sénégalais bi xam ne manque de personnel bi nekk ci ci ci ci ci ci ci euh, CTE yi amul lu ko justifié ñun ñu ngi nii on est prêt à aller travailler mais ministère de la santé moom moo décidé sur la base de rien du tout rompre les contrats de manière merci vraiment beaucoup. merci beaucoup Elimane Fall moom la ñu dalaloon en seconde partie de Matin Bonheur donc moom moo nekk président bi nga xamante ni moo jiite collectif euh, centre de traitement épidémiologique ñu naan ko CTE yu féetee fii ci biir euh, réew mi donc loolu lañ doon waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci seen ay prime de motivation ak euh, lii di contrat yi ñu arrêté te ñoom ñooñu ñu signé woon ko seen diggante ak ministère de la santé li mooy tey euh, tënkoon seen émission matin bonheur di jaajëfal képp ku ñu doon suivre euh, sur internet ou bien sur euh, la 2STV ak rajo bi 88.4 Origine FM merci beaucoup aux techniciens au niveau de la régie passez une excellente journée et à demain